que tey jii lu ñu mën a waxati. Euh, Sénégal yëpp ñu ngi waxtaanee dialogue bi nga xamante ne war na am. te njiitu réew mi woote ko. dialogue boobu am ñoo xamante ne bokk nañu yeewi askan wi ne dañuy dem wuy ci dialogue bi. am ñoo xamante ne gis nañ ne wuuyuñ ci dialogue bi. ba ñi nga xamante ne ñooy F24 di force ba dajale ay parti politique yu bëri. démb lañ def seen sortie ne ñoom demuñ ci bu Bougane dégg nga ko mu ne moom it aussi demul ci dialogue bi. mais ñu gis ku mel ni Khalifa Sall. Khalifa Sall. Euh, moom euh, ñuy rappeler ne yoon du ko tënk ba jamono ji kenn mun la wax ndax bokk na ci élection yi wala bokk ci élection yi mm-hmm. ñu gis ñeneen ak ñeneen aussi ñu jóg ne dañuy dem ci dialogue boobu xalifa Sall laa jël exemple mm-hmm. waaw ba tey rek ñu wane benn image benn forum bu amoon ñu wane euh, bu maire bu Barthélemy Diaz organisé woon ci ci ci Ndakaaru ñu wane président la République ànd ak Barthélemy Diaz ànd ak Khalifa Sall ànd ak Habib Sy Mm-hmm. image yooyu Sénégal yëpp ñu ngi koy partagé jamono ji mm-hmm. mu man ni ne le courant passe mm-hmm. est-ce que euh, dialogue bi du diviser Yewwi Askan bi ak noo gisee dialogue bi waaw xam nga maas man ku yàgg miin sama discours yàgg nga maa dalal fii li ci dëkk bi sama wax yëpp fi ma koy tàmbalee mooy réew mi lu metti metti war nañoo mën a toog ci taabul waxtaan loolu yàgg naa di ko wax ba pare di ko assumer ba pare malgré samay position yàgg ngaa dégg may wax ni man de j'ai amis yoo xam ni ñu jege Macky Sall lañ. li ko assumer. parce que loolu tamit mooy dëgg. Mhm. man d'accord naa ci dialogue. Mhm. dialogue ñun ñëpp ko bëgg. ok waaye man combine laa d'accordul. d'accord nga ci dialogue waaye d'accordu ci dil. ci dil ak mhm. combine. ok léegi bu ñu définir lan mooy dialogue rek dinañ xam ni lii Macky Sall di woote du dialogue. dialogue mooy loo xam ne dañuy fexe ba daje ci intérêt général. intérêt général mooy lan mooy intére Sénégal tey. mooy ñu fexe ba sénégalais yi ku bëgg laaj baatu askan wi mhm. te sénégalais yi fas yéene la koo jox ñu bàyyi la mhm. nga laaj baatu askan wi ok képp koo xam ne nii constitution bi moo la tere nga laaj baatu askan wi ñu fexe ba doo ko doo ko laaj mhm. kon leer na senegal problème bi la am ki ñi bëgg laaj ñu bàyyi leen ñu laaj ki wër ta laaj ñu ne ko yow waroo laaj waaye dialogue bi li li muy wundu mooy kaay leen ngeen ànd valider sama candidat. ah bon waaw te dinaa la ko justifier ba mu leer. waaw bëgg naa nga justifier ma loolu. parce que. Mhm. nee naa la bu doon dialogue bu sincère rek. billaahi yàlla rek moo tax may wax man damaa gëm dialogue. Mhm. gëm ni réew dialogue moo koy tabax. ok waaye gëwuma ku ma nax. Mhm. parce que malgré dialogue yi fi jot jaar yëpp amul résultat. parce que magis àll président Macky Sall lim ñu miinal mooy bu ñu wooyee dialogue day jël la ko ca arrangé. mu téye ko. li ko ci arrangé wul mu sànni ko. Mhm. gis nañ fi sax ay dialogue yoo xam ne ci la kàngam yu bari yu bokk ci opposition bi. Mhm. dem fekke ko ci camp. absolument mais yooyu yëpp ñun mënoon pare woon nañ pour tolérer ko pour dem gi ak moom. Mhm. à condition que moom li mu waxante woon ak sénégalais yi nga xam ne bi mu koy wax kenn saxalu ko lem. moom moo dugg ci néeg tëj boppam. yeewu boppam. xam nga dafa am sëñ mag mu baax ci réew mi dañuy wax sëñ Abdou Lahad Mbacke yàlla na ko yàlla yërëm. Uh-huh. danaan wax naan gor gor buum du ko yeew. Uh-huh. ay wax moo koy yeew. dina wax ba ba yeew boppam. kàddoo koy yeew. Uh-huh. maanaam gor buum du ko yeew kàddoo koy yeew. ok Macky Sall moo yeew boppam ci ay waxam. ni moom mënta bokk. nañ ko nañ ko séentu ci lu nekk ba mu des nekk candidat deux mille vingt quatre. kon kay kooku du moom moo war a woote dialogue bi koo xam ne yow bokkoo. koo xam yow bokk ku bokkul nooy wootee waxtaan est-ce que dégg nga naa sew sew bi. maam koo xam ne warut a bokk. Mm-hmm. yow déjà waroo bokk constitution bi moo ne yow waroo bokk. Mm-hmm. kon kay yow bu fekkee ni waxtaan dafa war a am. mais mais dama gis contradiction ci li nga wax léegi ah. dinaa ñëw yii ay benn benn lay leeral. lii parce que boo nee boo nee boo nee d'accord nga ci dialogue ba pare. ne dama la bëgg a dialogue d'une manière générale. waaw d'une manière générale mais dialogue bu Macky Sall bii laa d'accord. Mm-hmm. doomu daara de Pastef. bëggoon nañ xam seen position carrément par rapport ak dialogue bi ak aussi euh, yan condition ngeen di teg pour dem ci dialogue bi. ñun dialogue bi demuñu ci. loolu Ousmane président Ousmane ko wax na ko ba mu leer. Mhm. yaakaar naa Ousmane waxam mooy yóbbaale géew képp ku bokk Pastef. man mii mhm. moo ma tënk moo tënk képp ku ànd ak moom. ok te du Ousmane ko rek moo ko wax F24 wax na ko. Mhm. man dama laa bëgg a wax ni la li tax. Pastef bu demee ci dialogue bi baaxul loolu laa lay argumentaire ok mooy dialogue bi dañ koo tuddee nii dialogue ci kaw mais li nekk ci biir combine la mhm. loolu laa la wax arab dafa am lu ñuy wax mhm. kalimatu xaqin yuraadu bihal baatil wax joo xam ne dëgg la nii ci kaw mhm. waaye li ci suuf neen la ok loolu laa lay wax maanaam kaay leen ñu dialogue te yow ñi nga ñi war a def jaloog ñëpp a ci kaso bi <laughs> doy na loolu kan ngay dialogal ko <laughs> mais Ousmane Sonko du jëmmam ji rek dafa am ay gor ay cadre ay sénégalais yu mu àndal. Mhm. di xeex sénégalais yooyu mu àndal di xeex ñoo ko ak indil tey fi fi mu agsi mhm. bu fekkee ñooñu ñi ci ëpp jàpp nga leen dugal leen ci kaso bi. ba pare ni ba pare ni kaay leen ñu dialogue. Mhm. ñun bu ñu demee dialogue boobu sénégalais yi bàyyi ñu. absolument. parce que mara naan bu mu la taxa naan petit. mara naan bu mu la tax a naan petit. sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu moo daan wax ni gor du tiit ba fen. gor du ñàkk ba ñànki ba ñànki. lu mu metti metti taxawal ci say principe mhm. kon Ousmane Sonko waxul ni du wuy ji mag sàll parce que buggul jàmm mhm. waaye dafa ni du wuy ji mag sàll parce que jaloogam bii mu wootee du dëgg ci moom mhm. dialogue la boo xam ni combine moo ko tax a jóg combine te loolu man tey Ousmane Sonko bu demoon ci dialogue bi ma bàyyi ko ah bon yow xam nga ma xam nga ni man Ousmane ko moomu ma absolument parce que Ousmane Sonko lan lañ àndee ak moom ay principe ok Ousmane Sonko joxuñu paas. Mhm. jënd lu ñu yëre takk lu ñuy jabar. Mhm. wuta lu ñuy daara lépp avant ñu koy am avant ñu koy xam am nañ ko. Mhm. kon kay ay principe rek ak Sénégal moo ñu boole. ok tey intere Sénégal moo nekkul ci dialogue bi Macky Sall di woote. parce que dialogue bi li ko tax a jóg. mooy kaay leen valider sama candidat. mais mais inquiétude inquiétude bi ci Sénégalais yi am mooy euh, Euh, ni ñu li ñu li ñu li ñu li ñu jël man ni dafa dafa am dañu dañu bëgg a diviser yeewi askan wi. waaw parce que gis nañu ku mel ni Khalifa sàll ak ñeneen mais ñu jege ñu ñu ñu ñu yaakaaroon ci ci yeewi askan wi ñu mën ni war da ciy bëgg dugg ñu dem bëgg dem wuy ji ci dialogue bi. waaw loolu la tubaab tuddee diviser pour mieux régner. Mhm. diviser pour mieux régner xam nga politique moom mag Sall ci rôle la nekk. Mhm. parce que day politique di def effort yu mu garder nguuram. di def effort pour am troisième candidature. Mhm. moom ci loolu logique boobu la nekk. ak tamit di def effort nu mu fexee ba Ousmane Sonko du bokk. Mhm. kon moom ci logique am la nekk. ok léegi nag opposition bi ñoo war a am courage nekk ci seen logique. Mhm. nekk seen logique mooy wolof nee na boo wàccee sa ànd ànd boo dem fekk ci borom. absolument opposition bi mu yeewi askan wi li tax nit ñi di leen topp mooy cohérence. cohérence ci seen i discours mais cohérence ci seen i jëf. ok bari na ñoo xam dañoo battre campagne ci yeewi askan wi sonn ci lool. Mm-hmm. te pourtant nekkuñu ay député nekkuñu ay conseil mm-hmm. exemple ku mel ni Dame Mbodj ku gën a sonn ci yeewi askan wi amul. absolument ku mel ni Clédor ku ci gën a sonn. Mm-hmm. man mii kenn gënuma cee sonn. absolument te fa ba falu jotee falu wuñu. kon du coalition boo xam ne affaire leader la ku ko jàppee affaire leader wala affaire parti yaa ngi nax sa bopp. coalition la boo xam dañ ko lancé. sénégalais yi gëm moral gëm éthique gëm changement gëm ni Macky Sall ni mu yoree réew mi baaxul. Mhm. ñoo ñëw jàppale yeewi askan wi ba mu am li mu am. ok kon coalition boobu. képp mhm. ku ko trahir ndax dialogue bu Macky Sall woote. Mhm. trahir nga ab génération. da nga jàpp ne Khalifa Sall dafa trahir. waaw loolu wax ko wax ko dina teel. nañu yónni yàgg loolu la wolof wax. bu ñu yónnee yàgg fan yu néew. dinañ xam ba xam Khalifa Sall dafa trahir wala trahir. parce que Khalifa Sall li mu wax mooy moom daal na bokk. waa xam nga. xam nga aussi dañuy Khalifa Sall li mu bëgg mooy bokk ci euh, élection 2024 yi. te bul fàtte ne yoon da ko tënk euh, moom sax bu Karim Wade gën a woyof. Mhm. que Khalifa Sall. Mhm. parce que xalifa sàll pour moom foog amnistie am mu mën a bokk ci élection yi. Mhm. est-ce que euh, dawul pour moom aussi ci dialogue boobu pour gën a mën a bokk ci élection yi. waaw xam nga boo gisee ku mel ni Mimi Touré. Mhm. Mimi Touré vraiment man maa ngi encouragé bu baax courage bi mu am. Mhm. ak fitam ak ngoram. ok parce que man damaa gëm man du ma bañ nit. Mhm. nit nag mën nañoo bañ a bokk position nga defendre li nga gëm ma défendre li ma gëm. ci démocratie. ok yow xam nga ni yàgg nga maa invité fii may tiire ci kaw Mimi te regretté wu ma ci dara. parce que boobu bokkuñu woon camp bokkuñu woon gis-gis muy défendre boppam man may défendre sama idéologie ok waaye tey dafa am combat bu ñu boole boo mhm. xam ne moo ëpp doole ay parti ok combat bi ñu boole mooy Sénégal mhm. combat bi ñu boole mooy ñu delloosiwaat démocratie mhm. combat bi ñu boole mooy ñu fexe ba sunu président de la république kàddoom bañ a varier mooy moo waxoon ni du bokk du bokk ok combat boobu moo ñu boole mu wane ci dil bii nii Mimi Touré moo ko toj parce que Mimi Touré wax na ko nee na PDS mosu ñoo réeroo ak Macky Sall. Mhm. te loolu Sénégal yëpp xam nañ ko. man yàgg naa di ko wax. Mhm. yaa ngi dégg. parce que PDS PDS sax. Hmm. Euh, may rappeler ñi ñuy déglu ne PDS bokkul ci F24. bi ma dalalee démb bi ma dalalee ci émission bi. waa PDS. Hmm. lañ ma xamal mooy ñoom fi Mimi Touré bokk dañ fa bokk. loolu waxi caaxaan la. Hmm. loolu waxi prétexte la rek. seen bopp la ñuy nax. yaa ngi dégg. kon da ngay dëggal ne dafa mën am di am na dil bu am entre Karim Wade ak ak ak Macky Sall. mais exemple bi ma lay jox. man mhm. tudduma Karim Wade. Mhm. mais PDS moom député PDS yi nga xam ne ñoo àndoon ak Yewwi. Wallu Wallu. Mhm. ah def intercoalition. bañ duggee assemblée lañ trahir réew mi. Ah. ànd ak Macky Sall. mais loolu mooy dëgg loi yi jàll assemblée nationale yëpp PDS mooy dooleel APR ñu mën koo voté. pour mën a am majorité loolu Sénégalais yëpp xam nañ ko. mesure de motion de censure bi koroog bi ñu koy wootee lan lañ wax ñu génn di lay naan yéeguñu ko woon ak waxuñu woon ak ñoom mhm. kon PDS ba ñu tourner le dos le peuple mhm. yàgg na ok daf fekk ni nit ñi nag ñoo amul seen jot parce que dañoo gëm ni sénégalais yi moom boo taxawee di nax sa bopp bisa mhm. ngi ñëw ñu ñu wan la ni sa bopp nga doon nax ndax man mu toog di nax boppam da ngay bàyyi rek ba urne yi yi mooy wane ñi doon naxaate ak ñi hmm. doon tappale ok kon jàpp nga ne daal PDS mooy PDS ak seen i député dañoo war dañoo war askan bi ak Idrissa Seck hmm. kenn réeroowu ci déglul baax la imam li nga wax do doy na war boo indee kaamel ma waat ko PDS waaw Macky Sall Idrissa kiif kiif kiif kiif waaw arab yi ñoo koy réeroowuñu réeroowuñu foo ko teg neuf ak six ak neuf la hmm. Idrissa Seck yow man ngaa nekk ak Macky Sall ba des lu matul fukki weer. Mhm. nga ñëw nii da ngay génn parce que da ngaa bëgg a nekk candidat. ok ba pare billan wu Macky sàll nga wane ni mooy bilan bi gën ci bilan yi. Mhm. ni sax bu ko neexee ministère yi ma am sax am na ñoo xam mën naa leen faa bàyyi. Mhm. nga déclarer sa démission ñetti fan ñu recevoir ko ndànk te kenn dàqu la mais Mass loolu bu dul dil lan mooy dil. <laughs> doy na waar. non kon nañu respecté sénégalais yi ñu respecté seen intelligence mm-hmm. parce que ñoom ceeb bi jën bi ñuy lekk ñun moom lañuy ñuy lekk mm-hmm. ataaya ji ñuy naan moom la ñuy naan <laughs> yaa ngi dégg ngelaw lii di leen upp moo ñuy upp dara ñëw moos kenn non yow tamit xam nga gars yi mm-hmm. am na benn waay bu ne xaw ma Idrissa Seck marché muusante la juddoo <laughs> ñun de juddoo wuñ marché muusante borom bàkkat ak waaye kajoor lañ juddoo ñun gis nga nit réew mi ku yaakaar ne sa bopp ngay nax ku yaakaar nit ñi ngay nax sa bopp ngay nax kon Idrissa Seck PDS musu ñoo réeroo ñoo far. Mhm. léegi nag nañ am courage waree ni ñoo far am nañ ci droit. Mhm. ñu ne ah ñun kat Macky Sall politique am moo ñu doy nañ ànd ak moom comme man ni ma amee courage ni Ousmane Sonko politique am moo ma doy moom laa àndal. mais xam nga lu ma jaaxal. ñu ngi naan PDS euh, réeróowul ak Macky mais ñu gis ñi ànd ak Idrissa Seck waaw Idrissa Seck moom ñu bëri jàpp nañ ne parce que conférence de presse bi mu def ba daal daanaka mën ni dafa mën ni ku ku ku nostalgique waaw da benn ambition mu ngoog pour réew mi très bien maanaam maanaam ku jeexal daal moo ci feeñ waaye mais dañu gis ñi ànd ak euh, Karim Wade ñi ànd ak euh, Karim aussi mhm. ñu wax ne waa PDS ñu ne ñoom bëgguñu amnistie révision du procès la ñu bëgg waaw léegi waaw léegi xam nga Mimi Touré dafa wax lu am solo mhm. nee na Karim Wade ñaata milliards lañ koy topp. 133 milliards. 138 milliards. 138 milliards. Mhm. état bu Sénégal ñoo xëy ni Karim Wade yoreel na réew mi cent 138 milliards. Mhm. exilé ko génne ko Qatar. léegi koy topp 138 milliards nga bëgg koo indiwaat ci réew mi mu nekk candidat. Mhm. bëgg a éliminer candidat boo xam ne diffamation nga koy. lañ koy toppee man sama wàll baalu ma ko ko. te sénégalais laa. absolument Karim bu ne cëpp ci réew mi man dana ma fay sama wàll. <laughs> déet waay dañuy waxante nag ñoom état moo ko wax. Hmm. ay magistrat ñoo ko wax. Mimi dem na ba ci ba ci wax nañ laaj Amadou Ba. non xam nga man waxi Amadou Ba ak yooyu. intéressé man man li ma intéressé mooy état wu loolu. léegi bu ne am nañ laaj xaalis bi Amadou Ba. waaw kooku aussi mbir mbir mu. du baaram la xam nga maas Mimi yàllaa ko tàggat. Mhm. yàllaa ñu indil Mimi Touré parce que Mimi Touré lépp lu xew ci nguur gi xam na ko mhm. yaa ngi dégg. absolument te ay waxam kenn mënu ci dindi virgule. Mhm. maa ngi dégg ni ñu ngi koy menacé. absolument menace yooyu moom ay caaxaan la réew mi moom fi mu ne ku ragal ku la menacé. Mhm. wala nga ragal kaso. Mhm. toogal sa kër. ok mais nañu yooyu mënul xoqatal kenn liy dëgg Karim Wade. man awma dara lu ma koy contre. ni ñu acharné woo ci kawam dama ko ñaawul ba Sénégal yëpp dégg ko. parce que dama jàpp ni wóoru woon a am. mais état bi ni woon xale Sall. ak Karim Wade dañoo jël alalu réew yaa ngi dégg. Mhm. ñoom ñoo ko waxoon kenn waxalu leen ko. Mhm. léegi Sonko moom tuumaal nañ ko lu ne ba mu des jëlal alal réew mi. musu mhm. koo jël. ndax liggéey na quinze quinze ans impôt et domaine. impôt waaw génn waat ni musuma lekk. te amul dara luñ ko toppee. lu ñu koy toppee. ñii nga xam nag dañ leen a jàpp flagrant grand délit. nga ne yow da leen di amnistie ñoom ñu bokk. Sonko mi nga xam ne moom kenn musu koo tuumaal lu dul ay complot. nga ni du bokk mais loolu bu dul lan mooy dil.